ak li waraloon marché bi mooy dañoo am jafe-jafe jafe-jafe boo xam ne ak Aquatech moo ñu ko teg dañu jàpp ne Aquatech bu tegee jafe-jafe askan bi état bu Sénégal war nañ ci am taxawaay war nañ ko jéem a saafara ndax nag olof daf ne goono geenu golo gudd na waaye lu ci lu ci tong borom borom yëg ko kon état am na ay am na am na ay renseignements am na ñu ko nekkal am nay autorité yoo xam ne ñoo ne ci local localité bi war na nañoo yëg jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ndax jaaduwul ñu am ñaar fukki fan forage bu Ndoulo ñu tëj ko ci ay tappale tappale yu mag sëkk ndax amul lu ñu layee lu dul ne dafa am benn baaxeñ boo xam ne moo yëgoon ci euh, ci ci poto bi mu am maas euh, désenteur bi lakk Senelec ñëw nañ ba defar désenteur bi Aquatech ñëwul teg fi tànkam ma yaakaar nag état bu Sénégal bu jëlee forage yi ne dafa bëgg gestion bu gën a baax mu signé contrat Aquatech jox leen ko bu ñu ñu war a gérer ñu war a gérer suñ forage yi bu jafe-jafe amee dañ ko war a saafar ndax Aquatech signé wul ak ak askan bi mais état bu Sénégal la signé contrat kon jot na état bu Sénégal taxaw wax ak Aquatech mu bàyyee ñu suñu forage ndax ñun waa Ndulo Aquatech bi mu ñëwee di jël ñu koy jox suñu forage amoon nañu gestion bu baax ndax trop c'est trop. dañuy dégg président mu naan l'heure est grave mais l'heure mi ngi door a grave fii yëg samedi bu ñu réglé wul problème bi delloo ñu suñ forage danañ leen taalee suñ bakkan yi bañ ñu ci dara. waaw manque manque ndox yi li ko andi mooy Aquatec dafa ñëw jël gestion bi ci asifor yi état signé ñoom contrat directeur Aquatec ñëw na fii ne état bu Sénégal moo signé ak ñoom contrat ci teewaayu Mansour Faye avant élection 2019 lu mu wax ci kanamu li muy wax nag ci kanamu adjoint commandant la ko wax kanamu. adjoint euh, maire kanamu sous préfet ne état moo signé ak ñoom contrat ne dañ leen jox 89 milliards pour ñu réfectionner forage def ko ndox mu neex qualité quantité defaraat réseau bi. neen nag léegi nag état bi élection yi jàllee respecté wul li mu waxoon directeur aquatique Diop mu ne comme état respecté wul li mu waxoon ñoom aquatique duñu respecté li ñu signé li ñu signé li ñu état. askan bi ko nag comme yéen du ngeen respecté li ngeen signé woon te yéen ñu andil facture yoo xam ne mënuñu ko fay ci seeraay ñun tamit mënuñu ko ne di fay loo xam ne consommé wuñu ko ci loolu la daje nañ ak Aquatec lu mat fukki yoon ñuy wax ne tamit askan bi tënk nañ ne Aquatec déclaré nañ ko personne non grata fii ci Ndulo mayetuñ ko mu yabal kenn ci suñ kër ne day relever mayetuñ ko tamit muy joxe facture mayetuñ sax oto Aquatec mu doxantu ci dëkk bi oto Aquatec bu fi jaar danañ ko massacrer loolu ñun ñoo ko wax te pare nañ jël nañ suñu responsabilité. ñaar fukki fan waa Touba ca kanam ñoo ñëw di ñu may ndox. ak ñenn ñi nga xam ne am nañ wërsëg ñu jëndee oto di ko may askan bi dëkk boo xam ne dafa am collège am école primaire am franco arabe am case tout am lycée ñu dem ba eh, élèves yi nga xam ne ñu ngi jàng amuñu ndox buñ foobeere seen seen ay tableau buñ demee toilette amuñu lu ñu laabee loolu ëpp na. maa ngi xamal président Macky Sall waxuma ak ministre hydraulique waxuma kenn président Macky Sall lay laay waxal. ndax maak moom bi bëggee réew mi ñoo ànd di ba bis ba muy doon dara jël tuur moo ko Ablaye Wade keroog place Obélisque douze partis yëpp ànd ak moom bi ma agsee dane ma doy nga ma jëlal parole ma jël parole xeexle ko kon dëkk ma nekk kenn waru koo xeex factures yi ñuy wax di ko teg waa tund wi ak forage bi factures yi ko amut loo añee amoo loo reere doo fay ak factures yi quarante mille ak cinquante mille ak soixante mille loolu du am maa ngi wax makki Sall directement ne ko man seexu naa miin nga ma miin naa la xam nga ma xam nga ma xam naa la te nee nga sama xarit nga ma bëgg daal ndula gii am na tardement yu bare bare bare bare bare yu nekk ci dëkk bi facture yi ñuy wax kenn du ko fay amuñu lu koy faye ma bëgg mu xam ne dëkk bii bañunu ko da da leen a yaa ngi may dégg samp fii kenn nit ko am maanaa koo xam ne mën na koo jàppale pour waa tund yu bëgg ko bañunu ko fii bu fi defee lim fi war a def bu fi watee mooy gañe loolu laa ko bëgg a xamal moom xam na fa ma jaar ak Ablaye Wade yaa ngi may dégg moom nee na sama xarita te réew mépp lay wax sama xarita bu dee sama xarit bu mu toroxal fi ma dëkk fi ma dëkk laa am nanu sagal ñun ñëpp te sagal ma pile rapidement la yónnee ñu defar forage bi balaa mat ñaari fan burul loolu burul loolu bu ma waxtaanee waa tund wi bu ñu yëngatuwaatee ay gendarmerie ki police ki militaire mënuñu ci ñun dara